salaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa alihi wa ajmain mbokk yi jullit yi fi teew yëpp ñoo ngi leen di nuyu ci nuyób lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di jiital ci nuyoo bi kilifa diina yi nga xamante ne bi ñoo fi nekk ñëpp di ci jiital ñoom ñëpp ki nga xamante ne bi moom la fi sëriñ Muntaqa Mbàkke yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala guddal aw fanam dolli ko kàttan ak man-man ba lim mu yéene defaral lislaam lépp yàlla may ko ko mu def ko te ñu ànd ko ak moom ak mboolem kilifa yi diine yi nga xamante ne bii ñoo fi yebal ay ndaw ñëpp di nuyu bu baax a baax itam ñi nga xamante ne bii ñooy waa administration bi nga xam ne ñoo fi nekk tey di jiital ci ñoom nag soxna si nga xamante ne bii moom mooy gouverneur de la région de Louga nga xam ne bi mu ko nekkee yàggul waaye nag ku ñu ràññee la ci gox bi rawatina itam ci dëkk bii di kokki ci yépp activité yi nga xamante ne bi ci wàllu diine la jëm gis nañ ci taxawaayam bu baax sëriñ bi nee na mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gën koo dëgëral dolli ko itam nag kàttan ak man-man ba li nga xam ne moom lañ ko wóolu ba teg ko ci loxoom yàlla defal ko ci mu am ci ndam yi kawe njortam di nuyu itam ki nga xamante ne bi mooy monsieur euh, le maire de Koki muy Sele Maysa Ndiaye moom itam muy doomi dëkk bi di kenn ci njabootu sëriñ bi sëñ bi mi ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaayam def naa ne yooyu yëpp mbokk yi wax wax nañ ko muy koo xamante ne bi itam nag bari na ay mbir yoo xam ne sëñ bi da koy sàkk ci moom waaye da ciy taxaw kemtalaay kàttam moom ak mbokkam ma muy euh, may général Maysa Ndiaye ñoom ñëpp xam nañ seen taxawaay sëñ bi mi ngi leen sant bu baax a baax di leen di leen gërëm di sant yitam nag bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi diine yi nekk ci gox bi yépp ak ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci environ bi yépp sëñ bi mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen xamal ne nag lii nga xam ne mooy liggéey bii ñuy def fii ci di fàttaliku kilifa gu màgg kilifa gu tedd mooy maam Muxtaar Ndumbe Jóob defe naa liñ ci wax ci suba ak léegi yaatu na donte kon ne mënuñu koo dajal waaye sëñ bi day wax na rek ci gàttal moom góor yàlla la woon goo xam ne lislaam la doon liggéeyal jafal itam nag jum boo xamante ne bii day leeral lislaam mu yaatal ko lool ci biir fii Sénégal wax nañ ci biir conférence yi ñu doon def ak yi nga xamante ne bii moo ci topp yépp liggéey bu rafet boo xamante ne bii def na ko tam yaatu te bari na tey foo xamante ne bii islam maa ngi fay jolli dafa fa yaatu ci biir liggéeyu Maam Makhtar Ndoumbe bii la jóge muy liggéey boo xam ne ni ñu koy waxee toujours day liggéey bu barkeel liggéey bu barkeel moo mën a jur lu mel nii liggéey la bu barkeel boo xamante ne bii kilifa yu mag seereel lañ ko ko kon tey bu ñu toogee fii di ko fàttaliku gëm nañ ne yërmande mi ngi wàcc itam nag ci réew mi ci ci gox bi yépp ndax buñ da zikri saalihin tatanazalu rahma loolu xam ne bu ñuy ku ju baax ñooñ di wax seeni baax baax ngir nit ñi bañ cee roy loolu yërmande yàlla day wàcc kon yërmande jooju itam yàlla ko yàlla matale ci ñun ñëpp sëriñ bi nee na nag bu loolu jàllee mi ngi ñaan ñëpp itam di ñaan jàmm ci réew mi ndax lépp loo xamante ne bi ñu ngi ko fi yaakaaroo wala ñu di ko fi wut wut mbaa ñi di ko fi mébét nee na ci keru jàmm rek la mën a am kon nee na na ñëpp di dox ci jàmm di wax jàmm tey ñaan jàmm ci réew mi te ñëpp itam nag joo ci seen loxo di ñaan itam nag autorité yi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ci njiital son excellence président de la république ñu gën cee taxaw seen kémtulaay kàttan ndax jàmm rek lañ bëgg ci réew mi yàlla na ko fi yàlla def loolu nee na ci ñëpp def seen loxo bu baax a baax ñu di ko ñaan ndax képp koo xam ne yaa ngi déglu ci àdduna bi di seen yenn ci réew yi nga xamante ne bi la fay am fii nu toll nii metti na lool te la leen ko xañ mooy ñàkk jàmm kon na ñépp di suuxat jàmm di dox jàmm di wax jàmm ndax yàlla defal nu jàmm loolu sëñ bi wax na nañ leen ko dañ ko fàttali ñépp ñu di ko def te itam ñuy ñaan ñi jàmm fii nag ci fàttaliku gii ñuy fàttaliku maam Moxtaar Ndumbe lu toll ci ñaari weer ngi nii bis bu set danañ fu wàccee ay kaamilu alquran lépp nag dajale nañ ko war koo jàng itam war cee def ñaan ñaan googu yëpp itam sëñ bi nee na nañ ko jooyal ci ñaan jàmm ci réew mi ñaanal itam ñëpp yéen a xam la ngeen bëgg yéen a xam itam li nga xam ne moom ngeen di mébét di ñaan yàlla ñu dexañ ko ci biir loolu lépp yàlla saafara na ko ndax yàlla lim yor bari na lool ay magasin la te ñim ci ni ko waxee te lépp soxla wu dara ñun rek a tax ñu euh, mu bind yooyu yëpp kon mën nañ ko cee sabablu ñaan ci yàlla yàlla defal nu jàmm defal nu tawféex defal nu taysiir bu loolu jàllee itam mi ngi sant bu baax baax na bu ñu santee ñii nga xamante ne bii ñooy association bii nga xamante ne bii ñoom ñooy toppatoo ndonal maam Mokhtar Ndoumbe Diop radiallahu taala anhu te ñépp ci mbooloo mi bokk ci kenn ku ci nekk am si na taxawaay taxawaay boobu moo jur tey ndaje mii ñuy def sëñ bi mi ngi leen di gërëm di leen sant di leen gën a soññaat itam ni nga xam ne noonu la ko mbokk yi waxee noonu luñ ci mënoon ci taxaw ñu taxawee ko bu baax a baax ba léegi nga xam ne moom la ñu naal muy daaray maam Mokhtar Ndoumbe nga xamante mooy complexe bi ñu tudd te yaatal ko te détaillé ko te lépp itam doon boo loo xam ne bu sottee ba màgg ba ba taxaw itam ndamal lislaam la njariñal lislaam la njariñal jullit yépp la na ci ñépp taxaw def ci seen kémtulaay kàttan def ci seen man-man kon loolu yii mooy kàddu yi nga xamante ne bii moom la waxoon di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mbooloo mi fi daje ku fi ñëw ti àndoon ak yitte yitte jooju yàlla ko suñu borom saafara ku fi ñëwoon te ànd ko wéredi wala nga bàyyi ko amuk wéredi wéredi yàlla ko suñu borom saafara yàlla defalu tawfiq taysir defalu saadatu daarayni wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.